dem suis ci guddi daal euh, avion euh, Air Sénégal boo xam une compagnie Transair moo opéré bu dem euh, Bamako avec 79 passagers au moment du décollage il a un problème technique Il def sorti de piste piste bi voilà loolu de ci aéroport loolu incident la accident parce que a freiné brusque avion a gagné ci piste donc automatiquement l'autorité aéroport euh, déclenché li ñuy wooyee plan d'urgence plan d'urgence mooy genre accident yooyu bu amee ci aéroport bi euh, service yi fii nekk yëpp dañuy dajaloo ku ci nekk xam nga sa wàll parce que loolu ba leen ko fàttali ko def nañ ci ay exercices yu bari donc ku ci nekk xam nga muy LAS muy euh, autorité ASECNA en tout cas service yi nekk ci aéroport bi yëpp dajaloo nañu daal ku ci nekk jël les choses en urgence donc bi loolu amee passagers yi euh, dañ leen a évacuer ci avion en urgence mu am nag ci biir évacuation boobu ñoo xamante ni dañ ci gaañu ak benn pilote voilà loolu mooy situation bi ça s'est passé vers euh, une heure deux heures du matin euh, ñu déclenché cellule de crise bi autorités dont le ministre des transports aériens ak le directeur général de l'AS en personne se sont déployés automatiquement ñëw ci terrain pour jël en charge euh, opération aéroportuaire yi ci ni ko plan d'urgence bi

Air Sénégal di compagnie qui nga xam ne en charge passagers yi ñii mu hôpital ñii mu jël en charge hôtel aéroport aussi euh, euh, piste ah, euh, pour dégager débris qui nga été ni choc bi débris yi am piste aéroport bi nettoyé nettoyer ci obligé aéroport 9h30 du matin lañ après bi nga xamante ni aviation civile muy ANACIM def na liggéeyam ak euh, autorité ak service yi nga xamante ni yëpp ñooy def loolu euh, ñu wat aéroport bi bi ñu joxee seen autorisation ni lepp dem revenir à la normale ci lañu dooro door wat aéroport bi à 9h30 donc vol yi waron dem ci guddi yëpp euh, ay weer ay fukki avion yi waron dem yo xam dañ leen bloqué won 9h30 lañu commencé dem am na ay retard mais euh, alhamdulilah tout est bien passé passagers yi woon dem yëpp euh, dem nañu depuis 9h30 waaye fi ñuy waxeeg nii euh, vol yi defe naa yi waroon dem yëpp ñu ngi commencé yëpp di dem am na yoo xamante ni li ñu wax signalé léegi suñu service yi juróom-ñaari compagnie yoo xamante ni ñu ngi doon xaar yëpp dem nañu yi des dinañ dem dans la soirée.